jaajëf té sama gaay nañu déglu Idrissa Sak nañu déglu Idrissa Sak Idrissa Sak Ousmane Sonko puisse être candidat <laughs> oui sama day ay waay देंगे देंगे वाओ नहीं बुलेट ताल बुलेट बुलेट वाओ कैंटर कर कैंटर कर देंगे dégg eh nee na Sonko ñëw na ci moom waaw na la la def ci Sonko le vingt sept le vingt six mu jiite ma ma jiite ko affaire sëñ la photo rek ma ko mu ma waaw timis waaw ayatul kursiyu ak Quraysh ma firil ko ñaar yëpp yëfu làppatoraaj ak yëfu sëriñ vrai naafeq vrai naafeq gars yi laaj leen partagé leen su ma paree damay def su ma paree damay defal analyse Idrissa Seck nee na Macky Sall su bëggoon rey Sonko Sonko du fanaan ngeen baal ma nag affaire bi leerul noonu sax dégg nga ah Macky lay wax ah Macky lay wax moom la jiite timis déggal balaa may dee muy jaay sëri ay waay làppato Sénégal Idrissa Seck ne ne day tere alxuraan xaalisu réew mi yëpp ngeen sàcc ko di wax suñu borom suñu borom gars yi laaj leen partagé leen billahi Sénégal dañ ko war taal rek ñëpp perte perte parce que ñii dégg ko rek dañoo tiit moo tax ñuy def seen conférence de presse waaw man de kontaan naa sax Sonko moom mi ngi ci position de force dañoo tiit waaw Macky Sall lay waxal defe naa Macky lay waxal nee na am na ju dul ndekki suba.

waaw Macky lay waxal de ci la dem kër Sonko dafa tàggu Macky pour dem Sonko waaw du wax de déggal suuratul di jai alxuraan jaay sëriñ làppato gars Gay laaj le partagé leen billahi wallahi ta'ala. Yalla yalla yalla di ñu ak yalla dégg ko li mo tax Sénégal du dem yalla yalla yalla. yalla li mo tax duñu dem wax ñu rek lan nga def kër Sonko mo gën waaw li muy wax yëpp gëmu ci dara dara dara gay balen ma rek bu paré def analyse bu neex parce que li kat victoire la ci Sonko ñii dañoo tiit ah ñii dañoo tiit man tiitoon naa ci Sonko mais ñoom ñoo tiit ne ko te waaw la ma waxan nee na la ma waxante ak moom seen yoon nekkul waaw waaw wow, waaw waaw nee na lu jur loola nee na moom moo tax waxoo dëgg de waxoo dëgg de waxoo dëgg de li tax match amul c'est parce que Sonko Sonko condamné wuñu ko waaw waaw ñii dañoo yab nit ñi barke rasulaay dañu yab nit ñi yabaate la ñu def waaw Wow. dégg nga léegi léegi ngi ci anglais bi. vital natural interest international. ñii dañoo tiitaan nekkate Sonko da leen jekku ah billahi wallahi taalahi Sonko da leen jekku vital national interest c'est notre de notre intérêt national vital national interest fen rek fen rek lu tax ngeen di continuer di jàpp nit ñi kon dégg nga mi ngi làkk anglais mi ngi mi ngi làkk anglais narcissisme mégalomanie dégg nga géwél yaa ngi koy kañ gars yi gën leen laaj gën leen partage waaw nee na je suis nee droit parce que day bokk mënoo ci dara waaw ñun soxlawuñu nga d'accord ci Sonko bokk wala bañ bokk Sonko day bokk par force waaw ñi ay tàppet la ñu nekk de ñett amal trente cinq ans ah dégg nga yooyu de la fi wax gars yi laaj leen partagé la je soutiens la candidature de Ousmane Sonko dañoo tiitaan gars yi nekkate ñii dañoo tiit gars yi laaj leen partagé leen su ma pare léegi mu jeex su ma paree ma defal leen analyse ñii Sonko da a jekku billahi wallahi taala Sonko da leen jël waaw waaw ñaari mandat yu tegloo dégg nga ah i ku def ñaar dégg nga ah loolu de waaw kon Macky du bokk waaw dafa nekk ci kanamu yoon waaw boppam lay defar de dégg nga boppam la génn na Macky génn na Macky léegi génn na Macky parce que nee na ñaar yu tegaloo bokkul léegi Sonko la bëgg génne aha waaw waaw gars yi gën leen partagé ñett yi mu wax waaw ku ñu daan ku ñu condamné définitive ñu daan la waaw waaw waaw dëgg la kon bokkoo waaw candidat waaw waaw gars yi gën leen laaj su ma paree dafa leen analyse waaw waaw. lu ma waxoon bu dee deful dara. na wax ne. waaw. dégg nga. mais Sonko. waaw ah, yow xanaa moom conférence de presse bi dañ koy teg di ko tegaat. il ne fait que se répéter nga lu ëpp milliards laa la wax Idrissa bu la ñu sonal ne nee na na wax ne ba jant bi di fay moom musul seq ak Adji Sarr dara Sonko amul sa jot waaw moom nee na ñaari mandat yu tegloo ku ko def bokkoo kon génne na waaw gars yi gën leen laaj gën leen partagé su ma paree rek dama leen di defal analyse jàngat parce que lii lu baax la ci Sonko Sonko moo leen tere nelaw Sonko moo yor doole bi lii lii Idrissa Seck mi ngi jëfru ci lu bëri gars yi gars gën leen laaj gën leen partagé léegi mu jeex incha allah. Aha su mu nekk mi ngi jéem a justifier li ko Ablaye Wade ji ñoon indiwaat na yàlla waxati na dégg nga <laughs> balaa may dee ñuy wax waxu sëriñ seen mentalité làppato yi mooy tax Sénégal du dem yàlla yàlla yàlla ñu nekk ci weeru koor ngeen di fital nit ñi di combine di complot bu ñu waxee ngeen di wax yàlla waaw gars yi like leen partage leen man yaakaar yaakaaroon naa ne affaire bi dina jeex ay waay yàlla ay waay dimbali ñoog yàlla ah waaye Sénégal dem ci nee na Idri Idrissa dafa waaye nit ñaa ngi koy déglu sànq demoon na ba am demoon na ba dix mille ba dix mille dix mille bi dégg ñu ngi sëriñ la sëriñ la léegi gars yi waaw léegi ma def ma pose affaire bi tuuti parce que fi mu nekk nii Idrissa Seck yëfu làppato lay def waaw Idrissa Seck yëfu làppato lay def mais conférence de presse bi lu baax la ci Sonko jaajëf Bibi Laye Touré conférence de presse bi Euh, lu baax la parce que euh, dafay tax ñu xam ne ñoom Sonko waa lii jeex na lii dañ ko tegaat xar ma fay ko waaw conférence de presse bi jeex na léegi nañu def analyse bi analyse bi conférence de presse bi jeex na defe naa waa Sénégal teg Sénégal teg dañ ko dañ ko teg dañ ko tegaat waaw dañ ko tegaat man seetaan naa ba mu fin léegi moom li mu wax mooy ne Idriss rek gaay ngeen baal ma nag tey dafay taw quoi day taw fii j'espère que yéen a ngi may dégg waaw xaar ma def ko nii su ko defee nii defe ci ngeen ci la ngeen di gën a dégg son bi Idriss Seck Idriss Seck sama gaay yi euh, conférence de presse bi lan lay wane dafay wane ne ñoom dañoo tiit ci président Sonko c'est bon hein? yéen a ngi dégg son bi dañoo tiit ci président Sonko parce que mon li mu wax dégg ngeen ko nee dafa bëgg Sonko bokk Sonko dafa war a bokk loolu la wax loolu nag nee na Macky Sall moo ko ci Sonko parce que mon moo dem ci Macky Sall ne ko dama bëgg nga bayima ma dox ben mission parce que dëkk bi dafa ndoron dañoo tiit dëkk bi dafa ndoroon takk ba mu demee ci Macky Sall mu julli fa timis xaw ma julli fa geewa dafa dugg na fii nee na Macky Sall tari saar bi dugg na fii di Sall ban saar la mën tari Macky Sall mënul tari saar julli yooyu ay sóob la nee na moom moo tax 3 avril dëkk bi tàkkul Idriss Seck nee na moom moo tax 3 avril dëkk bi tàkkul parce que moom moo dem seeti Sonko am lu mu waxanteeg moom li mu waxanteeg moom nag suñu yoon nekku ci mais li ñu war a jàpp ci Eh, nena tok tok ndog waw limu wara japp ci ci ci ci li Idrissa sek wax moy ne eh, Sonko mom dafa bëgg Sonko nek candidat waxon na len mr cheikh Macky Sall position bu bes bi mu am legi moy xar ma def nañ parce que tay day taw fi quoi taw bi sax mi nga bu arrêté mën na démé na lé defe na mi ngi commencé eh, wis bi mais day taw di ñëw day taw di dem léegi. Idris Seck neena na xaaral ma bàyyi fi sama saag dem taxawal dale waaw ma defal len analyse comme ça bu tawate rek ma ñëwaat taw ma ñëw làqu gars may len ma deux secondes fi moom chaque jeudi day taw xam nu mu demé wala vendredi ma bay sama sak fi bu tawé rek ma ñëwaat Idrissa Seck vraiment conférence de presse bi bo gisé nit ñi diko sétat parce que nit ñi du questionné Idriss Seck am na dix mille vues ñëpp xam nañ ne Idriss Seck warul mën a am dix mille vues fenn mais dafa toll foo xam ne comme moom jot naa wax ak Sonko nit ñi dañoo curieux bëgg xam ndax Idrissa Seck lan la waxante ak Sonko benn ñaar li tax mu am dix mille vues ah fii nag xaw na am na ngelaw de. gars yi ba amul ngelaw waaye yéen may dégg li tax Idrissa Seck am ñaar mooy ne nit ñi dañoo bëgg xam ndax day def day nekk candidat wala du nekk candidat nekk candidat moom nee na ci li ma jàpp bu dee dafa am ngelaw wax leen ma moom nee na mënul wax ne day day nekk euh, candidat euh, parce que Macky Sall waxagul waaye li ci doy waar. ça c'est une déclaration extraordinaire Idriss Seck bu man bëgg Sonko candidat c'est une déclaration extraordinaire extraordinaire ndax fi mu Macky Sall merci Wow, son premier conseiller Macky Sall c'est Idrissa Seck kon Idriss bu amee fit ne Macky Sonko day bokk Macky Sall xam na ne Sonko day ngeen ko mu lakk anglais mu ne for the vital interest of Sénégal américain yi loolu la wax bu ñu ba dëkk bi ndara jaxasoo ñu ne pour l' intérêt vital du du pays nañu def li nañu def li pour pour jéem a sauver Sénégal kon moom Idrissa fexe na ba wax Macky Sonko il faut mu bokk Sonko mënul bañ a bokk te man waxoon naa leen Macky Sall léegi stratégie am xam nga mooy lan nan lay def ba man ma bokk Sonko bokk ndax man jaaxaloon na ma vraiment le trent ñu jékki-jékki Sonko am victoire victoire boobu dafa maa jaaxal ba ma ne man Macky Sall bàyyi na Mame Mbaye Niang parce que loolu moo gënoon logique loolu moo gënoon logique moo tax fast track bi bu mu ñëwaatee ñu war a attewaat Sonko le 17 avril vraiment man jaaxal na ma trop trop trop parce que man dama jàpp ne Macky Sall bàyyi na Mame Mbaye Niang bàyyi na ko primaire jaajëf man dama jàpp ne ba Macky Sall bàyyi na Mame kon bu ñu toogee gis Mame Mbaye Niang ñëwaat tey ñu toog Idrissa Seck ñëw dañuy jéem a jaxase xel nit mais mais le problème mooy man li ma gënoon sama analyse bi ma njëkkoon def boo xool mooy analise bu baax bi mooy ne Sonko a gagné Sonko dafa gagné le parce que yow nga jekku nit war ko rey war ko rendi mais jékki-jékki le juge kayita jël responsabilité jox la defet boo xam ne dafa tax ba Mati Trois Pommes di jooy ka teet ci live am gis nga dimanche bi passé sax Mati Trois Pommes deful live ndax découragé Mati Trois Pommes deful live dimanche bi passé gars yi gën leen like gën waaw léegi euh, ci laa ne Macky Sall la bàyyi na Mame Mbaye mais xëy na Mame Mbaye Niang dans ay ay mbiram fexe na ba convaincre Macky Sall ne xaaral ñu jëm leen titre rek mais man appel bi sax appel bi

tant que Sonko deful appel kenn waru ko jugé loolu avocat di wax ñu renvoyé waat affaire bi kon Macky Sall lii daf koy def rek pour jéem a tiital Sénégalais yi que ni moom dafa am doole lan la Idrissa Seck wax gars yi gën leen laaj gën leen partagé Idrissa Seck li mu wax du waxu waxu waxu waxul dëgg bu ne Macky Sall bu bëggee rey Sonko Sonko du fanaan loolu la Idrissa Seck wax Macky Sall bu bëggee rey Sonko Sonko du fanaan Idriss Seck waxuloo dëgg waxuloo deug da ngay waxo deug Macky Sall bu reyee Sonko lolou mom mom tamit du fanaan wax jëpp loolu la rey nit dafa yomb yow Sonko bu ko neexoon mu ne damay rey Seck idriss Seck do fanaan rey nit dafa yomb mais boko ko est-ce que di nga ci guen c'est ça le problème dama bëgg nga comprendre Macky Sall du Joe Biden Joe Biden tey bu ko neexee mu joxe ordre ne dem leen président euh, ne Osama benn Laden comme ni ko Clinton defoon ak Bush def nañu dem ñu rey ko buñ ko rey américains yi dara du ci fekk parce que américains yi am doole mais Macky Sall amul doole boo xam ne dafay rey Sonko ba pare fanaan Sénégal loolu Macky Sall amu ko kon nag boo waxee ne Macky Sall mën na rey Sonko waxuloo dëgg Idrissa Seck gis nga nit da ngay wax dëgg mais bu ñu tookee ngeen bëgg rey nit ñi sen mentalité lapoto sëriñ bi nee yalla yàlla yonent bi nee inna lazina amanoo ah julina timis mako ko fofu lañ leen di naxé mais lolu lolu dinañ ci ñëwaat man limu leen bëgg expliquer moy li tax idriss rek genn di wax mais wax ji mu wax man dama man xana man dama joom limu leen tégal sank xana man dama joom samay nopp mo baxul wala idriss sek limu wax ne pour nek président dafa am ñetti condition bu njëkk bi moy il faut nga am 35 ans deuxième bi mooy euh, ah Bassirou ñu naan dañuy wër bassir Gueye loolu tam dinañ ci wax Bassirou Diomaye deuxième bi mooy il faut que nga nekk nga am nationalité sénégalaise troisième bi mooy waruloo def ñaari compte ñaari mandat yu tegle Brimel loolu mën naa ko dégg wala dégguma Idrissa sekk nee na munoo def ñaari mandat yu tegle kon nee na Macky Sall bokkoo nee na Macky Sall bokkoo léegi Idriss Seck il est en de divaguer il est en de rêver ndax moom day gént bu yaakaare ne nee na Sonko mën na bokk mais moom dafay dem ci département yëpp mu def fa genre di woo sénégalais mu ne leen ah ne Ousmane Sonko ñëw wax ne ah ne buñ ko daanee buñ ko daanee ci ci affaire Adji Sarr bi kon moom même bu fekk bu ko fekkoon sax mu nekk président après dafay bàyyi mais Idriss Seck ay idée yi muy wax yi muy yi muy génne Sonko amul sa jot ba da fay ñew ci say euh, euh, euh, meeting di jëm expliquer affaire Adji Sarr affaire Adji Sarr Macky lolu Idriss Seck lolu Qu'est-ce que idrissac? gis nga Idriss Seck li mu def ni moy yefu parce que mom déjà éliminé na Macky Sall parce que néna ku def ñaari mandat Boko, lolu nak journaliste est-ce que dégg nañ ko lolu journaliste dañ ko war exploiter ku def ñaari mandat yu tégalé waxu en français waxu ci tukuleur waxu ko ci japonais ci olof la ko wax kon Macky Sall bokkul loolu la Idrissa Seck wax nee na Macky Sall bokkul léegi nag dafa bëgg éliminer Sonko bu éliminer Sonko moom moo fiy des dafa ñëw pour jéem a dëggal boppam pour jéem a wax Sénégal yi xool leen ma man maa sauver Sénégal ndax le trente dëkk bi dafa ndoroon takk jëppeet man maa dem seeti Macky Sall Macky Sall ma ne ko dinaa dem def am lu ma benn mission bu may def mission boobu bu ma ko defee. Euh, euh, kii nee na Idrissa dafa tardé su ma defee mission bi après Sénégal dina sauver. Macky Sall d'accord. gars yi dinaa dama bëgg ngeen comprendre benn affaire Idriss Seck du leen wax lépp de moom ba mu demee ci Macky Sall xam nga lan la wax Macky Sall bàyyil ma dem ci Sonko waxu leen wax ji de Idrissa Seck waxu leen wax ji de nga yaakaar ne Idrissa Seck dina tok di wax Macky Sall amna lo loo xam ko defee dëkk bi dina dina normal Macky Sall bayiko non noonu rek mu dem. en tant que président de la République te mu xam ne Idriss Seck mii njuuj njaajeer la te mu xam ne Idriss Seck fauteuil bi Macky Sall toog ci la Idriss Seck gars yi ngeen baal ma nañ leen ma tuuti euh, affaire bi ñëwaat na je pense connexion bi day dem di ñëw léegi ba mu ne Macky damay dem ci Sonko Macky nangu loolu la ban jàngat ngeen ci war a jàng yéen ban jàngat ngeen ci war a jàng Idrissa Seck ne damay Macky Sall damay Sonko pour négocier Macky ne ko démal loolu ban jangane ngeen ci a xam ban un ngeen de ci Sonko yor wallahi c'est une révélation de taille breaking news la parce que xel yi na nañu waxante deug man mi Mister chek bañu procès

nga topp nit sonnal ko toj vitram ah sotti ko poison jàpp nit ñi tëj ci ñaari weer jàmm mam bay ñaan ñu ñëw ba foofu juge bi daal di démissionné le juge Mohamed Diop beneen juge jël cas def li Sonko bëgg ci laa ne léegi yëf jeex na Macky Sonko il est président de la République lii defet bu rëy la ci Macky Sall noonu la amee dafa rëy la papam du Joy. man jabal jaaj jaxle xam nga di wax né c'est le désordre c'est le tollé sax la utiliser le tollé au niveau de la de de la justice ci laa ne wërëb bi dem né kën motax nak ñom ñoom Macky Sall bëgg récupérer waat doolé ji motax ñu fast track Mame Mbaye parce que vraiment défaite bi ñu def c'est une défaite très cuisante mais ci digënté bi Hein? ba ñu indiwaatee affaire bi man nak mané man nak man xamatu ma parce que Macky Sall bëggul nangu defetam kon Macky Sall bëggul nangu defetam mais légui ñu toogaat ni Idriss Seck génnaat di def conférence de presse defet victoire bi am Macky Sall amone ci ci fast track bi parce que fast track bi man dafa jaxass sama xel ma waaw man mbay ñaam bi indi indiwaat ni pour le 17 néwon na nak man légui man nak Macky Sall mi nak dof la nak ki mom nak mom mom dof la ki mom japp na né mo yor doole bi té dinañu ray ba pare yemuñu fa ñuy wax ne Bassirou Gueye Bassirou Diomaye Faye ñu ngi koy topp déggu leen ma may dégg de wala ba pare ñu wax ne Bassirou Diomaye tey dañu yow ñu ne dañ koy topp parce que dafa dafa attaqué magistrat yi xaw ma ndax dëgg la dëgg wala li yëpp ci climat de terreur bu ñu jàppee jëf bi Bassirou Diomaye parce que kenn du ko tëj li ñuy def Malick lañ koy def takkal ko lam loolu lan la que ne Macky Sall vraiment mom dafa yakamti xex parce que yow déjà affaire Sonko bi yaa ngi ko indiwaat le 17 boo indi le 17 yow leer na la tension bi dafa yok kon Macky dafa yakamti xex man nag foofu laa tiitewoon way Idrissa Seck bii ma gis Idrissa Seck bii ma gis mu ñëw waxee ni mu waxee daf ma rassurer que ne Sonko moy diriger fi mu nekk nii Sonko dafa len a jekkoo billahi wallahi taala te Macky Sall nag wax dëgg nag buqat bi ñuy wax ci moom moo nekk ci moom ndax yow bu dee da ngay jaay guerrier di jël Amadou sàll muy jël ay nervi ay dof ndey dina jox ay semine ñuy gor nit ah mais kon looy négocier Macky Sall bu dee yow ah bu dee yow Macky Sall yow danga nga ne yaa yor doole bi yaa ngi tëj yaa ngi def lu nekk looy négocier Idriss Seck ñëw na sa kër foofu la jullee timit xaw ma foofu la xaw ma lu mu fa def yàgg fa trop ne la bàyyil ma dem ci sonkoo nga nangu loolu dafay Macky Sall dafa yëg Sonko Macky Sall dafa xam doole Sonko xam ne il est incontournable parce que sa mapandoo rek ngay négocier li tax ma ne la Sonko faalewul Mame Mbaye Niang Sonko dafa ne Mame Mbaye du ma sa moroom man sa patron laay waxal man du ma sax waxal Amadou Ba du ma sax Sonko dafa ne duma sax wax ak Amadou Ba man Macky Sall laay waxal gars gën leen laaj gën leen partagé le seul fait que le seul fait que Macky Sall yónni Idrissa Seck mu dem toog ak Sonko loolu dañ ko war a dañ ci war a kontaan ñun patriote yi Bassirou Faye dégg noonu loolu xam naa la campagne de kii rek pour jéem a tiital nit ñi parce qu'ils sont très forts quand même, il faut le reconnaître. Il faut reconnaître que waa APR ils sont très forts pour jaxase xel nit ñi décourager patriotes yi patriotes yi jaaxle lan moo tax Sonko waxul lu def na lii ah jekku nañu ah Sonko dinañ ko tëj buñ ko xasee tëj perte nañu gars yi commencé décourager seetaan naa benn waa ji ñuy wax Nazir Cissé loolu sax la doon wax boo leen seetaanee ba ñu xasee ba condamné Sonko c'est fini mun leen fi nekk naan da ngeen di génnaan daan da ngay xeex mais man su ma gisee Idrissa Seck Macky Sall yónni ko ci Sonko encore une fois maa ngi répété wu loolu patriote ci ak waa senegal war ngeen wax alhamdulilah alhamdulilah makki sàll bu demee ba commencé ne damay négocier kon moom xam na ne ñun xajuñu ci kawam billahi wallahi taalahi moom xam na ne xajuñu ci kawam bu demee ba d'accord ne dafay toog ak Sonko pour négocier ak lu mu mënti doon nag négocier bi lu mu mënti doon mais le seul fait yow nga ne xaaral ma yónni sama premier conseiller muy Idrissa Seck ki ma gën a yaakaar parce que mag moom ñoo àndoon ci Ablaye Wade am na xam-xam njuuj njaajër la comme man ñëw na jébbali ji man kooku may mu ñëw ma yónni ko ci Sonko loolu ñun dañ ci war a sant yàlla ñun waa app ñun waa patriote wa sen bop dañ ci wara wa wa dañ wara parce que de fay wone ne Macky Sall ah, na Sonko Sonko parce que nit ku bëgg du négocier nit ki mom bu la du négocier yow day ñëw def lu muy def légui lan la Macky Sall euh, euh, euh, Ousmane Sonko ba mu ci Sonko Sonko il est zen Sonko pour lui dafa dafa Sonko pour lui c'est la consécration c'est une victoire parce que mon comprendre loolu dafay dafay il a jox son Sonko en plus wax ci Cheikh Barangay. Est-ce que tu live live Cheikh Barangay, l'a live parce que je ne duma pas ko ah. waaw demoon naa ba jaaxle gisatuma kenn am fit génn dal Macky Sall Cheikh Bara Ndiaye rek rek rek laa gis démb ma seetaan ko moom ak Sadio mu wax ne amul ku mën a tere amul mindef, bu mën a tere Sonko bokk ci élection yi ba pare mu ne Macky Sall duñu la sànnil suñu carte ba Sadio sax di wax ah mais yow yaa ngi bëgg dafa mel da ngaa bëgg ubbil Macky Sall buntu parce que boo nee duñ ko sànnee suñu carte loolu dafay wane ne xëy na dina bokk mu ne waxuma loolu de man dama ne amul benn mbindeef te daf ko waat bu mu ne ba ma seetaane Cheikh Bara Ndiaye ci laa ne nag en fin de compte parce que mister layem layemi gisutu leen ko mu génn di wax discours de feu Clédor Sène defatul discours de feu ah Thiat Y en a marre ko mu def discours de feu Fou Malade Nous ñep kenn wax ndax fi mu fait Sall dafa dafa am lu réussir un climat de terreur li am Sénégal kenn musu ko gis kenn nous ku ñu la dik gis nga tay ni ñu terroriser ñu sommes ñu ne Nous Diomaye sax yónni nañ ko ay nit man Cheikh Bara ndjay yaakaaroon naa day ragal kooku rek mo fi des ci ku am pit di Sall li ñu def dàmb fëgg ko juróom-ñaari bal taxu ko mu tiit démb ba ma ko seetaanee ci laa man dama découragé woon Sénégal man dama yaakaaroon ne Macky Sall jekku nañu gars yi du ma ko nëbb parce que nit koo xam ne mi ngi jàpp suñuy doom yi di dugal ci kaso bi ah kenn ñemetul wax ana waa Y'en a marre la moo tax ñu génn ba pare li ma ci gën a découragé paa yu mel ne ay paa Bécaye Mbaye di jàppale Macky Sall mbër bu jële parole bëgg wax ci affaire Sonko mu ne coupé ma micro bi coupé leen micro bi démb ma seetaan Nazir Cissé bu mu leen di wax mu tegal ñu audio euh, kii Guèye Mame Matar Guèye ñu koy wax ci troisième mandat mu ne moom du ci wax waa Jamra du ñu wax ci troisième parce que jotagul mais di wax ay waxu naafeq yoo xam ne kenn mënul comprendre Sénégal yëpp di dawras dugal tànk génne tànk pas yu xiif yoo xam ne pas Bécaye mbay di défendre Macky Sall te xam nga la ma ci soof da nga leen di seetaan benn émission ñu ñu ñu ñu ñu ànd

ma balaa 24 heures am 100000 vues xamna naa léegi war na am 100000 vues dem leen ngeen seetaan ko après ben 30 minutes ci ngay xamné nak ki rek mo fi des ci ku am fit Sénégal Cheikh Bara ndjay rek mo am fit di wax limuy wax te xamna né sax amna na nu muy demee moom lañ ci naroon teg. léegi nak bama gissé idriss Idrissa Seck def conférence de presse bi man nar ko sax seetaan mais conférence de presse idriss idriss Seck bi dañ ci wara sante yalla parce que jang nañ ci lu bëri. comme ni mu ko waxee mu toog ak Idrissa Seck ba loolu la ñu wax man loolu gëmuma ko woon d'abord gën leen laaj gën leen partagé tey moom tey moom victoire amati nañ beneen victoire waaw man ma leen ko nëbb découragé woon naa trop ma yeewu ne man man man vraiment Sénégal maa ngi waaj a suur Sénégal billahi découragé woon naa waaye ba ma seetaanee Idrissa sek tey dama gisaat ne njëkkati ñu patriote yi ah nañu sant yàlla xale yaa ngi bindu xale yaa ngi bindu han ah. ba paré Sonko imaginer len Sonko tok fi mu toog Idrissa Seck ne ko message texte message est-ce que je peux t'appeler dafa am ben information dama bëgg wax ak yow est-ce que je peux t'appeler xam non lay démé da koy ñëk texte message Sonko ne ko amul problème mën nga ma woo bu wooy Sonko mu ne ko li, li lii dama bëgg ñëw sexy la waxtaan nak président vraiment amna ay proposition yu ma bëgg wax ak yow Sonko bu wax ak moom Sonko mën na gis ak ñoom Bassirou Diomaye ne leen ah Idrissa day ñëw Sonko day woo Khalifa Sall ne ko ah Idrissa nekk day ñëw day woo aji Abib Sy woo euh, ay dëmbooj lan ngeen ci xam gars yi ne ko amit dafa ay mbappano dina woo ak ñoom mu ñëw Idrissa bu ñëwee Sonko mën na ne mu laa julli timis wala defee lii li ak lii damaa gis ne ngeen baal ma Idriss Seck daana ko lenn moom tax a jóg le 30 dëkk bi dafa ndara takk jëppeen mais mais mën nañu négocier mën nañu négocier ba dëkk bi am jàmm wax naag président kenn du la tëj kenn du la tëj parce que moom lii kat dafa mel ne Macky xamoon na ko tamit man daal affaire bi daal jaaxal dox jaaxal na ma jaaxal na ma parce que ñom dafa mel ne Juss Keita bi man daal man daal léegi xel yi parce que idriss ak bu ne moom moo fay lak ji kon xamone ne Sonko ken du ko teg xamoon ne Sonko ken du ko teg est-ce que ñom ñoo changer juge bi léegi xel jaxona mais de toute façon dina wax ak Sonko ne ko nag lañu bëgg moy gat sa gat sa bi ngay wote nga bayiko bul bokku euh euh euh nu mu euh lan la ko lan la ko proposer won boo nekk candidat bo nekkul candidat

xam nga la moo tax négocier bon booy négocier da ngay wane ne yow da ngaa feebal da ngay wane ne ragal Macky Sall mu nekk dafa ragal dëkk bi tàkk kon xale yi dañ leen ah, kon ñii dañoo ragal le 3 avril dañoo ragaloon ñu def marche ah kon léegi dañoo ragal ñun xam nañu suñu doole suñu doole mooy Sonko buñ ko teree bokk dëkk bi dina tàkk ci pét te ñoom ñoo ko gën a xam léegi nag xëy na lii nag moo tax Sonko toog fi mu toog parce que. Sonko dafa fait ne ah moom yor doole bi moko yor connexion bi day dem façon il euh, euh, y a du vent aussi peut-être que la connexion sera beaucoup mieux euh, de l'autre côté attendez sac deux secondes Wow. Mr. Sheikh depuis les États-Unis d'Amérique, côte ouest les donne. côte ouest les donne. voilà j'espère que j'espère que la connexion sera beaucoup plus stable fii quoi côté B. voilà ok

donc ce euh, euh, may wax rek ci bu baax ci fini bu ne euh, le 17 lan mo ndara xew le 17 avril lan mo ndara xew waaw pourquoi waaw kay pourquoi Sonko waxugul ba merci tax Sonko ba parce que dafa nek ci position dolé ñom ñoko fekk ci kërëm ñom ñoo déposer les armes Macky Sall xam na ne nu mu tuddati munul téré Sonko bok li nak Sonko li tax waxul ba légui parce que xamna né le 17 té liir naa ko liir naa Seneweb ñu né on va vers un renvoi le 17 le 17 bu ñëwé kenn du àtte Sonko ndax Sonko amna ba le 29 pour def appel manam le 17 ay avocat Sonko dañuy dem tribunal buñu démé tribunal ñu né juge bi juge bi dootul doon Amadou Diouf loolu liir naa sene web dootul doon Amadou Diouf parce que Amadou Diouf mënul nek juge parce que mom mo ci duggal dafa duggal loxom ci dossier bi mënul nek juge mais day tan keneen kooku nag bu ñewé ñom Sonko dañ naan ko Sonko amna ba le 29 dañ koy renvoyé buñ ko renvoyé une semaine lañ koy renvoyé wala deux semaines loolu dafay joxaat temps Sonko kon Sonko soxlawul muy génn di wax te gars yi dañu waxante dëgg Sonko man dama ne woon sax dafa war a génn mu félicité ñu waaw xëy na buy génn sax warul génn pour pour wax taal leen réew mi ah Macky Sall dañuy xeex ak moom jaratu ko jaratu ko parce que bu xoolee ne Macky Sall bëggul xeex bëggatul xeex dafa yónni si Idrissa Seck Idrissa Seck ko man bëggatuma gis. nit bu dee Macky Sall nee na bëggutul rey kenn ah bu xoolee bu xoolee loolu kon Sonko danaan soxla muy gën di xaal calendrier Macky Sall négocié na ak moom jox ko ay garantie ñoom li ñu waxante yëpp duñ duñ duñu ko expliqué Sonko li mu waxante ak Macky Sall yëpp ak ñun xamuñu ko xamuñu lan la ñuy waxante est-ce que Macky proposé wul Sonko léegi bàyyi ma ma bokk yow nga bokk Sonko nag dafa naan ko loolu ci du du ci dal. Macky Sall mënuloo bokk Macky Sall mënuloo bokk léegi euh, na noppi ba ci kanam sax gars yi nañu waxante dëgg fi mu nekk nii fi mu nekk nii billaay balaki barke rasulaay man soo Sonko bu génnee xam nga lan la war a def génn bi daal mooy bu félicité gars yi que ne xeex bi ñu doon xeex jar na ko toj nañ sama vitre sotti nañ ma dara mais tey ñoom seen bopp ñoo dem ba ci biir xam ne mënuñu ma tere bokk victoire bi xam nga lan victoire ils ont pris euh, la décision Macky Sall dafa jël décision Idrissa Seck jël décision ou bien la réalisation dëpp ci ils ne ba neexul way Sonko mom day la Cheikh wax victoire bi dafa dem ba ci biir xam ne Sonko day bokk par force munu ko tere bokk Cheikh Bara Ndiaye wax ko Idrissa Seck wax ko léegi comme Sonko xam ne ne dafay bokk soxlatul mu nekk fi di di wax xale yi gën leen xeex léegi nag Mame Mbaye Niang li mu def di jéem a accélérer situation bi Macky Sall encouragé ko xëy na loolu dañ ko def rek pour pour jéem a tiital nit ñi pour wan nit ñi ñoom ba léegi dañoo am doole Diomaye Faye biñ ne dañ koy jàpp dañuy sóob parce que li ma liir ne moom la Jomaay wax waruñu ci jàpp nit parce que Jomaay dafa ne dañu nar a jàpp Sonko fees ko magistrat dañ ko bëgg a jàpp fees ko jël li yàppam lekk ko loolu la wax mais loolu rek <laughs> loolu rek na nga ne da ngay jàpp nit ah pata euh, pataaral bi dafa non baax na 221 code Sénégal ko gars yi gën leen laaj gën leen partagé Bassirou Diomaye Faye li mu wax waruñu ci jàpp nit magistrat yi yenn magistrat te waxul yëpp sax dafa ne yenn magistrat dañoo bëgg jàpp Sonko fees ko lekk yàppam dañ ko jàpp Bassirou dañ ko jàpp billahi ñemewuñ ko jàpp buñ ko jàppee li ñu def El Malick la ñuy def dañ koy téye deux jours trois jours après ñu jël lem takkal ko ko xool leen Sédhiou juróom-ñetti patriote yu fa jàppoon Sédhiou juróom-ñetti patriote yu fa jàppoon leen bàyyi nañ leen deux mois lañ leen tëj ak sursis ba pare jox leen amende cent mille francs séddu ay professeur la ñu woon ak ay lu ma xam kon Macky Sall mi ngi commencé dellu ginnaaw xëy na aussi Sonko loolu négocier na ko Idrissa Seck il faut que mu bàyyi ñu mun jàpp waaw gars yi ngeen baal ma jeex na xëy na tamit Sonko négocier na loolu ak Idrissa Seck que ne nu mu tuddati.

mégalomane boppam rek boppam boppam moom dafa jàpp ne mën na njuuj njaaj ba nekk président Idrissa Seck dafa mu ne moo ñu gën a muus éliminé na Macky Sall parce que nee na constitution bi ku def ñaari mandat yu tegle doo bokk kon génn na Macky Sall léegi nag nee na na Sonko génn mu mu wax ne mu waat ne moom daal aji Sarr ba ba ba ba jusqu'à l'extinction du ba euh, euh, jant bi di di di di di moom musul laal Adji Sarr te Idriss Seck moo la gën a xam ne affaire Adji Sarr Sonko amul dara luñ ko ci reproché ndax boobu ba léegi ñaari at Adji Sarr ci boppam moo génnal boppam mu ne Sonko laalu ko Mamour Diallo moo ko bëgg a forcé wax ko demal nga ut maniyu Adji Sarr ci boppam génn mu saaga leen ñoom ñëpp mu ne ñii ay dooméram lañ ay imbécile lañu ah Mamour Diallo dafa ma dara loolu loolu Idriss Seck moo la ko gën a xam Idriss Seck dafa yaakaar ne moom mën na nekk président dafa yaakaar ne mën na ëffal Macky Sall euh, euh, euh, ak ak Sonko ñu xeex après moom mu ñëw mu ne gis ngeen le 3 dëkk bi dafa ndoroon tàkk man Idrissa Seck man maa sauvé Sénégal gis ngeen ko man damaa gëm yàlla indi la zina amono bu am ni saali xaali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 Dieu a dit je suis le la Joor gis nga ba mu naree dem ci euh, sëñ Touba ñu ko demal ci la Joor ndax Lat Joor kat moom mooy euh, mooy mooy chef de l'État di wax ah gis nga man tare naa fi ah suuf suuf ah, yooyu la ñu bëgg gëm loo affaire affaire lapato ay affaire sëriñ laa xool leen ma man maa baax ci Sénégal boppam lay liggéeyal boppam la fi nekkal du Idrissa Seck du tus te li dal moo laa moo ko dal yaakaar na ne fi mu nekk nii mën na nekk président mais billahi wallahi taala Idriss Seck mënoo nekk président man Idriss Seck bu naroon nekk président Macky Sall di ñu continuer di noot sax moo ma gënal billahi barke rasulahi dafa am te Sénégal Sénégal gars yi dafa bëri ay jaam dafa bëri ay jaam Sénégal moo bëri ay jaam ku nekk sa bopp li mu def ñëpp ko mën jël fi benn ayatul kursi di tari wala jël alhamdulilahi rabil alamin tari ah xaar ma noppi balaa may jël saar bu mu mënul fii parceriser yaasin benn saar moom li sa Salba Ndom di wax kul mawta xaw ma lan xaw Salba Ndom kul xaw ma lan muran ah am na benn benn benn saar bu benn phrase boo xam ne moom rek lay wax xaw ma dëgg xaw ma lan dëgg dafa di wax mais Idrissa Seck billahi dafay nax boppam du mës a nekk jegewu ko sax naan dañu naroon taal këram gis nga dama bëgg ngeen comprendre may wax mu naan day jéem a menacer Sonko waxuma leen ko fi woon waxuma leen ne Idriss Seck ba mu demee kër Sonko sax menacé na Sonko waxuma la nee na ne waxoon naa leen dafa menacé Sonko de mort tey mu génn ci conférence de presse bi mu wax ko nee na Macky Sall nee na euh, Sonko bu la Macky Sall bëggoon a rey doo fanaan dafa menacé Sonko de mort day day sóob. Macky Sall rey Sonko ñemewu ko xalaatu ko loolu tax mu yónni la pour ngay négocier léegi nag affaire bi lenn la li ko guddal li ko gàttal xam nga mooy boo leen bañee dëkk bi takk ci peet te Sénégal bi ma gis billahi wallahi taalaahi paa yi nga xam ne paa yu xobedaas paa yu tekkiwul dara paa yu xobedaas ay Mame Matar Gueye ay paa

moom candidature am baax na Macky Sall bu dee da ngeen di xaar te am kay balaa may fàtte Idrissa sekk ci boppam traiteur la jaam la moom tey dëkk bi bu melee ni mu mel moom moo tax parce que moom ci boppam ci conférence de presse am nee na moom moo diggal Macky Sall ne ko bul wax troisième mandat ba pare tey nga ñëw nga ne nga tu veux jouer au sapeur pompier té ñepp xam nañ ni tay dëkk bi bu bu bu ndaré tak len nak tak nga tax parce que Macky Sall dafa bëgg def 3e mandat yow ya né Macky Sall bul wax Seck moko wax Macky Sall man mako bul wax né da ngay def bul wax né do def mais Seck yow yaay kan mais li moy tax mané yefu nafaq c'est pas toi c'est la constitution constitution bi mo né Macky Sall bokko Macky Sall amna <laughs> dama dem ci ben site am benn waa bind li dem ci livre Macky <laughs> livre Macky Sall ci livre Macky moo bind ceci est mon dernier dernier euh, mandat Macky Sall ci livre Macky ci bopam mo bind ceci est mon dernier mandat waji bind dernier caps moy euh, lettre majuscule dernier man man man commenté sax di mané c'est pas possible Macky Sall nekk ci mom ci bopam wax na li moy dernier combat té ñun sax faale wu ñu Macky Sall li mu wax lu mu waxul. Macron li mu wax li waxul faale wuñ ko Ablaye Wade def na def na def ñun faale wuñ ko Macky Sall moom li tax ñemewul boobu ba léegi ñu génn mu ne damay def troisième candidature damay def candidature ñemetul sax dem ci Badio Camara il a man dama ko ba ma gisee loolu damaa tiit Macky Sall ñemewul sax dem ci Badio Camara du dem ci Badio Camara loolu maa ko njëkk wax senegal nag maa ku njëkk wax Sénégal de Macky Sall du dem ci Badio Camara de ñun lay xaar ñu dem ci Badio Camara day bàyyi ba parrainage jëw mu dugal boppam parce que tapkat la xam na ne bu waxee troisième mandat affaire Mame Mbaye dañ koy teg fa affaire Adji Sarr dañ koy teg fale adduna bi yëpp troisième mandat la wax bàyyi dañ dugal ci làmminam Macron dégg lu mu wax on ne prononcer sur une candidature hypothétique ñoom Macron lan wax loo xam ne Macky ñemeewu ko wax lan lañ ciy wax la man dama bëgg goor gentleman bu nekkee gentleman nga ne goor nga nga ne torodo nga sa maam torodo la xawma may li fañu fañu fa ñu ja di jay géré da ngay ñëw da ngay ñëw nga dëggal sa bopp nga ne man may sen pay may président Sénégal sam pap mom mom Sénégal xoolal damay def 3e candidature ken Abdoulaye wad géré la dafa ñëw mu dëgg boppam mais Macky Sall la bokkat la bokkat bo xam daf ñoo yépp man Sénégal des fois damay bëgg sax sama nationalité dama koy bëgg joxe su ma gisee paa yu paa yu xiif yi paa yoo xam ne ay dix ans moo leen desee léegi ñu dee ñoom ñëpp billahi ay paa Bekaay Mbay ay paa Mamatar Gueye ay paa Xadim Samb paa yu xobedaas yoo xam ne buduloon gars yi xaaral je vais je parce que fii dañuy def benn réwi euh, exercice budul woon yoo xam ne budul woon budul won Macky Sall duñu tekki dara hé sama ordinateur bi daanu ba tojul budul won gaay ngeen bal ngeen bal waxna ba sama ordinateur bi daanu dama ne Sénégal des fois man damay bëgg sama nationalité dama koy bëgg joxé billahi barke rasulallah Sénégal mo bari jam Senegal mo bari pa yu xif Idrissa Seck kan moo ko gën a xiif te xoolal lu ñuy gën a am Idrissa Seck lan la nam ñaata milliards la denc ñaata milliards la denc mais du ñu suur du ñu suur ay pa Bécaye Mbaye ah ah wax dëgg Macky Sall mënuloo bokk troisième mandat Sonko moo fi ne est-ce que yaa ngi may dégg. dëgg boobu mu neex leen mu naqari leen loolu mooy réalité Sénégal mais yow ah mais yow bëgg lu neex Macky Sall bëgg 4-4 bëgg Jesner bëgg million jar na nga jaay sa askan dëkk bi dara takk ay xale yoo xam ne musuñu liggéey xaar ma tax xaar ma demee na ay xale yoo xam ne musuñu liggéey chômage bi di leen rey ñuy dem ay libi ñu leen di def jaam yow sa doom Modou Mbaye nga utal liggéey Sen TV xaw ma 2STV Modou Mbaye bu duloon yow Modou may xam nga ne kenn xamu ko jàngul amul diplôme gaa ngeen baal ma man sax bëgguma fi nekk def ay attaque personnelle ah mais boo yooyu seen booy léegi boo leen gisee ñoom ñëpp ay Modou Mbaye dañu yor seen oto yu baax yor seen 4 x yu baax ah topp Sidi Diop top PNG ñu nek Sénégal nan xawma Ligue des Stars di def ay match football ay Ligue des Stars parce que yeen sen domi da ngeen bëgg Macky Sall di leen sedd ñu yor ay millions yeen ngeen am seen kër paa yu paa yu di tak ay ñaaral ñettel nek sen badaxal mada ay pa khadim sam ah bour dafa wara a ay DJ Bops ay Mamoud Ibra ah hein? ñu utal télé mais mënoon nduur fay utal leen télé mais vraiment Sénégal dafa bëri ay traite Sénégal dafa bëri jàmm des fois da nga bëgg dëkk bi tàkk jëppeet billahi barke lay ñu def ko dó ñëpp perte billahi barke lay parce que Sénégal il faut ñu raxasaat ko ba mu set wecc sëriñu naafeq xif buñu joggé dila la tanal ay saar buñu ñu ñu ne di gëmuloo yalla tari saar ñëpp ko mën taruma leen fi léegi ay ayatul xursi sëriñ yi loolu lañ fay nekkee ah yàlla nee na yonent bi nee na inna lazina amano wa amil saalihaati wasawaataw bil sappi wasawaataw bil xappi ah ku la xaw ma lan ran am na benn phrase boo xam ne lu Sénégal yëpp ko mën ku la xaw ma lan mu ran di di di di dekk fa di leen endoctriner sama gars yi ah mais sëriñ yi xam ngeen ne vraiment gars yi gars yi nañu waxante dëgg

mais Sénégal neexul ba neexul ku kaana muran xam xam nga lan kaana muran mooy phrase kii bi ku lu àq wala kaana waaw kay xanaa man rek maa ko mënul ku la àq wala kaana muran balaa may dee seede xanaa Birmel Njaago bi sax mën na ko catholique xam na phrase boobu ku la àq wala kaana muran Sénégal yàlla daf ñu war a mugal bi liberté gis nga yàlla nu mu defoon xaw ma lan euh, euh, euh, dëkku góor jigéen boobu dëkku góor jigéen bi yàlla dafa jékki-jékki rek mugal leen tremblement de terre volcan dëkk bi takk jëppit Sénégal yàlla dafa waroon jékki-jékki rek jël dënnu dënnu yu mag yooyu Fatou Mbaye billahi rek genre bomb atomique nekku ci bopp képp kuy affaire képp kuy sëriñ mu mu mbugal leen ñoom ñëpp de yonente yàlla lool billahi barke rasulaay yàlla dafa waroon jël benn benn dënnu dënnu muy ciblé boum boum xaadim sàmb boum disparaître ah DJ Boubs ah nu mu tuddati euh, euh, euh, Pa Bekay Mbay naa fekk yu bon yi boobu ngol ngol ngol ah Aliou Sow Sénégal yàlla dafa war a jël éclair dënnu barki rasul lay mbugal yi ah kër diine yi balaa may dee ñu nekk fi di wax ay yalla nee yonent bi nee Serigne Touba ali Serigne Touba la du ñëpp nak way xam ngeen sa bopp xam ngeen ku melni serigne Modou Awa ah Mbacké serigne Modou Awa Mbacké koko koko kookoy patriote Mbacké la sant MC ñass ñass la sant serigne Modou Awa Mbacké xam ngeen ko vrai guerrier koko est-ce que Macky Sall léegi mu ray ko serigne Modou Awa Mbacké léegi Macky Sall ray ko parce que waxatu deug la mais na fekk yu bon di dundé riba. baadoo la maxalaa musuñu xam lu neex waaye ci Macky Sall la ñu riche ay xaadim sàmb yi xamuñu musuñu xam lu ne ay Pape Samba kan moo ko fi xamoon balaa may dee ñu jaay star la tekki seen TV affaire lamb di jaay star di def di seen kanam di wax ah takk saaral ñetteel du ñu gat parker solay Sénégal Sénégal moo bëri ay mégalomane moo bëri ay dof genre genre euh, euh, Mollah Morgun nañ nga leer nañ leer billaay nañ leer na léeg ba leer sama ndel bu leer ah lu amba mola Sénégal moo bëri ay dof dëkk la boo xam ne ni ko waa ji waxee il faut que ñu sang ko mais biñ koy sang dañ koy sang ak deret révolution rek comme ni ko kii waxoon nu mu tuddati euh, euh, euh, Sidi Lamine Niass Sénégal dafa bëri ay jaam ay sagaru nit nit yoo xam ne lekk rek lu ñu lekk ak lu ñu naan jaral na leen ñu jaay askan yow nan ngay nekkee ci réew xale yoo xam ne musuñu liggéey yow yërëmuloo xale yi ah tey li ma ci jaaxal ñoom dañoo am na li ñuy am ba pare mais nekk fi di mar taatu Macky di ko mar ah ragal ragal bu ñu nekkee ci plateau yi dugal benn tànk Sonko dugal benn mag tànk Macky Sall mais dëgg neexul Sonko kenn waru ko sax atte ci affaire Mame Mbaye Niang Sénégalais yi tamit dañoo ñàkk fayda boo leen toogee ba Macky Sall Macky Sall saax saaxale jaar seen kaw nekk fi ba deux mille trente cinq jël Amadou Sall teg ko dem sa kan mooy perte yéenay perte ñun boo gisee ñu am courage di leen waxal parce que ñun dañoo sacrifier suñu Sénégal man xam ngeen ne dootuma teg Sénégal sama Sénégal dootuma fa teg sama tànk ñi may xas ñëpp bu ma duggee Sénégal mën nañ ma fexeel Macky Sall moo may njëkk jàpp dugal ma ci kaso bi li ma ñemee wax kenn ñemewu leen ko wax boo leen ko wax Macky Sall Cheikh Bara Ndiaye rek fi des ku wax dëgg ku ñemee attaqué Macky Sall ak sëñ Modou Awa Macky parce que ay sëriñ lañ moo tax ñooñu rek fi des ñu wax dëgg sëñ Cheikh Bara Ndiaye ak sëñ Modou Awa Mbacké man de ñaar ñooñu rek laa gis ñu ñemee léegi di continuer di wax ñuy ay clé d'or Babacar Touré ah ñëpp daw nañu res te wax nañu dëgg parce que li ñu gis kenn du ko gis. ay ray raykatu nag ngay deg ay tour yu musu deg ay Jérôme Bandiaky ay tour yu ñàng ngay deg ay Jérôme Bandiaky hein escadron de la mort di la fëgg ay bal di la duggal rebeus bu bon bobu boobu barkaasoo lay mais Sénégal bo leen dof dof lo man dootuma tek sank tank Macky Sall mi ngi Sénégal sour na Sénégal billahi wallahi taalaay du dekk tank Macky Sall mi ngi nek président Sénégal amna fa jabar xale bu ndaw am dom 3 ans jigéen war a takk xale ndaw foofu ñaareel du ma ko nëbb parce que sama jabar nee na Macky faral xaaral su ma ñëwee ñaareel patron laa koy utal mais loolu sax dama koy sacrifier ñaareel bi sax dama koy sacrifier jar na ko Sénégal dootuma fa teg sama tànk billahi wallahi wa taalahi tànk Macky Sall mi ngi Sénégal jël leen seen dëkk suur naa ko parce que c'est pas un pays jikko yi mu fa gis neexuma man du ko sax Macky Sall mais jiko baadoola jikko martaat martat bi gis di mar di mar té pa ay pa yo xamné légui ñu dé nga tok dégg ñala bekay mbay non Gaston meng amna cancer xawma ma dëgg la wala dëgg ñu ko dégg de dik dik ñu la maître Sey déna ba paré jeunes nek fi di di di organiser ay match football ay ñoom Sidi Diop Wally Seck Modou Modou Lo tournoi des stars di organiser ay match football ñoom gàkk bële de te bu dëkk bi a dàkk ba révolution bi a jekk ñoom ngay njëkk gis ñu génn ay son di attaqué Macky di dundu gis génn fi son c'est pas un pays suur naa Sénégal tant que Macky mi ngi fa ñaareel beeg awo sama doom ak sama papa sans un samay frère samay sœur jël leen dëkk c'est pas un pays du dëkk dëkk bu Macky Sall nekk du sax sénégalais moom marocain la d' abord xonkaayam marocain la c' est pas sénégalais mam Mbaye Niang du Sénégal balaa may jéem mu jël génn taxu tax di kanam ji di wax xonkaayam ñaawaayam mam Mbaye Niang du mam Mbaye Niang de mam Mbaye ñaaw la du mam Mbaye Niang de moom milliard yi lan la ko jëri du mam Mbaye Niang de mam Mbaye ñaaw mam Mbaye ñaaw la xonkaayam marocain boobu dañ ko war a rapatrier dañ ko war a takk kañ ngeen di am fulla bi ñu demee tribunal le 17 ngeen génne Mame Mbaye Niang ngeen takku ko moo laa mën gën balaa may dee mu naan Macky Sall day yeew Sonko yóbbu ko Kédougou Mame Mbaye Niang ngeen fekk ci pris ci prison ci foofu takku ko ba mu dëgër génne ko nekk nax nax yow da nga nee nga da ngay atte Sonko wala doo atte Sonko balaa may dee mu naan day yónnee ay huissier kër ko da ngeen ne ñàkk fayda ngeen yor 17 millions d' habitants doo leen génne nday foofu defar seen dëkk balaa muy taar tard sëriñu bon yi ñun ñu ngi fii di dund àjjana de man de xam nga bu ma dee ba ne suur naa Sénégal lan laa fay def mus na am sama benn benn benn copain bi nekk New York yàgg na ma ne ko waaw ah, booy yow lu tax doo dem Sénégal mu ne ma lan laa fay def booy bi ñaari tali la dëkkoon maa ngi doog a comprendre lan la doon wax lan la bëgg wax nag te li muy wax il y a vingt ans ma ne ko waaw ah, booy Abdou Abdou Cissé waaw ah, booy yow doo dem Sénégal. mu ne ma lan laa fay def mais il a raison amu mi baaxul courant bi baaxul seen ceeb yi weseng na seen maafa yi dang na comme ni ko sama sœur bi di waxee ngeen di dundee nambe ah fonde sumbi ah nekk ci ndóol ci balaa ngay gën a jommi Sénégal kii ñëw nawet bi ñëw ngeen di dëkk ci biir dox nit nan la mënee dëkk ci dox Kër Massar pendant des mois mais sénégalais sénégalais nan la nit di dëkkee ci ndox togg añ nga jël mool teg ko ci kaw ndox bi sa lal ndox bi lépp nekk fu douche yi di ball waa ji naan xool leen affaire baa ngi nii maa ko gisal sama bopp fële euh, Tivaouane Pël waa ji naan xool leen sama njaboot am leen mujj yóbbu village ba moom mu nekk fa parce que amul leneen lu muy loué feneen ba pare bu ñu leen tàllee le micro vraiment ñu ngi ñaan le président Macky Sall bu ñëw dimbali dimbali ñu ndimbal na ci fekk loxo borom libéré leen seen bopp bu ñu waxee di ñaan Serigne Touba nii yàlla nii yàlla Idriss Seck di leen génnal ay ay xasaay yàlla du leen sauver yéen a mën a sauver seen bopp jëppeet rek barke Rasulaay jëm leen ngeen am fulla ak fayda bu ñu teree Sonko ne du bokk génn leen ngeen defanteeg Macky Sall ma ragal la buggul defante li tax muy yónnee Idriss Seck Idriss parce que bu Sénégal tàkkee ñoom ñooy perte Idriss Seck fan la dafa mën dëkk Amérique seen seen xaalis yëpp mi ngi foofu seen kër yëpp mi ngi foofu li tax Idrissa Seck di négocier ak Macky Sall di négocier Sénégal bu nee jëppet yéenay perte parce que yéen a yor kër yu baax yi Farba Ngom moo fa am lu mat cent kër te kër yi da nga fay dem di fa fekk ay huit cent millions ay six cent millions Assane Diouf nee na kër Moustapha Niass boo fa demee ATM la am mooy machine yu gàpp yi ñoom tayal nañ sax dem banque ci biir kër gi dafa am machine gàpp da ngay dugal sa sa xaalis sa carte doomam yi duñu sax dem banque si biir kër gi la ñuy toog Assane Diouf ko wax ragal wax troisième mandat ñu jàpp ko tëj ko kañ ngeen di am fulla c'est pas un pays suur naa ko tant que Macky Sall man du ma fa teg sama tànk toogee ba deux mille trente cinq mooy man fii laay deewee fii ba tey c'est pas un pays juge yoo xam ne dañ leen di defloo Macky Sall di jël di def lu ko neex Amady Amady Diouf toogal ma fii jàppal ah Pape Alé Niang sax ñemetul wax ay ay émission raay wër-wëral ay généralité rek lay def parce que dafa jot a ñam dafa jot ñam ñam na un mois ba bu njëkk ba da génne ay dossier Pape Alé Niang génne du ay temps loolu doo xaaral ak li ma yor yëpp xeex bi jotagul xaaral ba xeex jot rek li ma yor yëpp dinaa ko wax buy wax ñu koy teg te bu ko tëjee kenn du ko faale kanam xurum anamu fàtte nañ ko Cheikh Omar Diagne anamu ñooñu ñooy géeree mais Karim da daan toog ay temps di attaqué Sonko moo taxoon sax ma ko daan dal mais géeree la lu mu bañ Sonko bañ Sonko bañul sax Sonko géeree yi Sénégal dañ leen di compter Assane Diouf sax dafa commencé woon daw res mais terewul jàpp nañ ko mu naan waaye dinaa génn dinaa porte plainte ñu ñu génn sama vidéo loolu waxu tapet la waxu PDS la yow dañ laa jàpp assumel maa wax Macky Sall doo def troisième mandat mais wooy non ñi génn samay vidéo vidéo yooyu yàgg na maa waxoon lii yàgg amul yàgg na tey la gën a tar Macky sàlla ak Marème Faye Sall duñu dynastie dëmm nooxóor Faye Sall ay baadoolo yu bon nitu fitna ngeen war leen fi jëlee ñu toog seen kaw yi di di si seen toilette sonnal leen wépp fitnaal leen sàcc ndeyi seen xaalis ma Mbaye Niang nan ngay sàcce si trente milliards ba pare tu as le culot nga ne da ngay porte plainte Sonko nga gagné nga ne non loolu doyul il faut que Sonko du bokk Sonko di doomu Casamance cent pour cent Ousmane Sonko lu te Ousmane Sonko xonqul de dafa ñuul kooku vrai Casa vrai sénégalais am ñu jàpp la tëj la looy def ci dëkk ba damay ñëw sacrifier sama bopp boo sacrifier sa bopp sénégalais yomb libéré <laughs> libéré réew ah yomb man affaire bi fa loolu tax mu def ma ay ree Sénégal yàlla da ngeen nekk ci benn position boo xam ne fii ngeen di jóge riche ba faw wala ngeen di jóge fi ndóol ba faw billahi wallahi taalaay riche ba faw wala ndóol ba faw Macky Sall mi ngi leen di nax il a dix mois dix mois ak bëri fukki weer boo leen bàyyee Macky Sall fukki weer mu toog fi ba février yàq ko ngeen man maa leen ko wax man Mister Shake billahi wallahi taalahi Antoine Diop mu général Moussa Fall yàgg commissaire Sangaré Ismaïla Madior Fall Amady Diouf ce sont des sadiques ak booy ñu recruter ñu toppoon dambu di tiire liñ leen pareel boo leen ko xamoon ñu ngi leen di rey ndànk-ndànk ñi ñu dugg ñu ñu yóbbu rëbës yëpp ñu ngi dee ay karim xum xaq ñu ngi leen di rey bu ñu la empoisonné wul ñu ngi lay jox ñam bu bon même bu dul ñam bu bon bi paquetage bi sax mu ngi lay ray dambuloo baa ngi lay rey ceebu jagaan baa ngi lay rey sot yu métti ya doxat ya ah douche yi xasaw yi kañe yi mi ngi lay rey ñu ngi leen di rey petit à petit feu cinq cent booy ñu dugal leen ci ci ci prison yi ba pare psychologiquement sax yow nga nekk foo toog sa di dal ay way sunko sot nañ ko poison sot wuñ ko poison sa xel du dal ñun ñi sax dañuy tok di mer ba paré nga yew di gis ay émission yo xamné dang koy sétane tout léegi nga am crise cardiaque ay pa bék ay mbay yew tay idriss Seck jël tane ay saal da ngay dem nga dé lépp ci ay duul ci ay duul idriss Seck do wax dëgg yow lo nam am nga 80 vingt nga am 80 do wax dëgg Macky Sall takkal say bagage nga dem balaa ñu la fi Samuel Doe libéré réew ak yom génn leen ñëpp génn comme Mali soxlawul taal Auchan soxlawul xolli orange soxlawul effacé effage soxlawul yóbbu Auchan ci tool ya soxlawul taal toto yi ak détermination Sonko ngeen di seetaan ñuy wër këram Macky Sall mooy kan moy kan ba japp nitu keur nitu japp quartier lëmb quartier lëmb nga wër nit ne du genn ngeen di seetaan rek ñu naan ma 4 avril la dugg na fi genn diggal len sen bop nit ben yon ngay dé makka Sall xaju len ci kaw 3 jours trois jours tàng kenn ñibbiwul ni ngeen def bu inscrire daxé ko koor inscription yi ni ngeen bëré non dem bo leen génnee mais chaque jour rek dañuy xaar Sonko chaque jour rek dañuy xaar Sonko pour mu joxe ndigal ah, loolu mooy suñu cat benn général la ñu am benn général chaque jour rek dañ koy xaar dañuy xaar pour mu joxe ndigal mais boo leen jëlee seen seen seen décision ñaar yëf a am dañuy nekk ay jaam wala ñu libéré suñu bopp ci biir libéré bi nag dina ci am ay sacrifice man de sacrifié ndax ñàkk naa Sénégal loolu da laa leen mais su ma ñëwee Sénégal sama jabar ku koy jox muy lekk sama famille jabar kan moo leen jox muy lekk sama doom ku koy jox muy lekk li ma mën mooy ma sacrifier sama sama liberté man Sénégal rek laa bëgg maa ngi fi di liggéey tey rek la la preuve tey sama contrat tey la ji mu jeex dans un mois mais tey laa war a dem dugal pour yokkaat mois de mai bii laa war a laa waroon jël vacance mais damay bëgg naa yokk deux mois bu du loon bu Macky daanu woon mois de mai maa ngi maa ngi Sénégal billahi wallahi taala mois de mai nekk sama xale bu baax ba soxna jaaj utal ko utal ko nag rak patriote comme moom nee na Macky Sall ay jéem a votal léegi bàyyi na Macky Sall mais c'est trop tard bu du mois de mai bu du loon Macky Sall mois de mai le 14 mai bii billahi wallahi taala ma jël samay bagage dem Sénégal def ko un mois un mois et demi nekk sama xale utal ko patriote ñaareel patriote loolu la ma gars yi digal waaw xale 23 ans bu baax mais lool yëpp dama kaa sacrifié te jar na ko di attaque Macky Sall di jéem a yee ñi même bu ñoo ba boo leen bëriwul na ma am jot de man xeexu njaago lay xeex fii ba 2024 tant que terewuñ ma def live xanaa ñu tere ma live fii man xeexu njaago của bão il faut que ngeen ngeen ngeen xam ne ñii dañoo bu bul wax loolu waaye mooy lan dégg ngeen bul wax loolu dama bëgg ngeen xam benn affaire ñii dañoo tiit tiit nañu ñu ngi jéem a négocier ak Sonko kon nag nit ki bu demee ba tiit da ngay war a gën a dal ci kawam le 17 catégorie foofu la nekk rëbës wax na nekk njaago Sonko boo ne ko votalal Sonko mu dem votal benn bi Sonko benn bi Macky doo ut ñaareel patriote ah gars yi ñoo ma ko digal de am na ku ne Mister ut ñaareel patriote comme ça soxna Diagne nekk nit man ma nekk njaago Sonko élection élection municipale ma ne ko votalal Sonko mu dem liste euh, euh, euh, departemental mu votal Sonko liste municipale mu votal Macky xaw ma am na daal nu mu ko defee jabar ju baax la Sénégal laa leen di ma fa teg sama tànk pare naa fa te Macky billahi wallahi taalam boo leen yaakaaree ne Macky Sall jeexal na <laughs> boo leen yaakaaree ne Sall jeexal na ma Mbaye Niang am pit boo leen yaakaar ne jeexal na yéen a ngi nax seen bopp dix mois ak bëri xaw ma sax ñaata des neuf mois dix mois dafa bëri ci ku yor ay milliards yore armée yore dik yore renseignement généraux serigne and ak mom pa yi nek ci média bi ay pa bek ay mbay ah di len wax ay waxu lamb moy tok dégg ñaan Ama balde modulo octobre gis nga octobre sax ñi ngi préparer ay lamb pour jëm na saxal xali yore média yi jije boppus ñom moy mënoon do fay yore ay milliards serigne bañ Sonko elle gets son life dégg ki naan ma sa ta voix que ta ta femme me manque elle ne me manque pas du tout Sylvie sama jabar manqué wu ma billahi wallahi taala, huit mois ngi nii may liggéey léegi le vingt lay mat huit mois sama jabar manqué wu ma man damaa dama ay pa bekaay mbay ak ñii dama leen a raw man damaa tollatuma fu may nammee jigéen c'est-à-dire nit da ngay doyal ci àdduna moo addut rek maa ngi fa woon moo passé J'étais au Sénégal, j'ai passé un, un, mois de rêve avec elle. Un mois de rêve avec elle. Mais plaisir àddina jarul topp ndax day jeex day mel ni ay gént ba ma ne demee Sénégal ñëw dama ne ko man pour man dama lii de ay gént ay gént la ku ma ne woon nekk naa New York deux ans gisuma la tey maa ngi nii nekk yow àdduna c'est une illusion gis nga plaisir bi ngeen di topp c'est une illusion nam mu ma ko dara dara nam naa ko mais c'est-à-dire man loolu aduna man plaisir ak jigéen top topuma topuma tax sonuma topuma kat kat topuma ma topuma lek mu nekh motax yalla dima ko indil namuma dara dara dara dara man dama bëgg justice dama bëgg nit ku ñuul xalé yi nga xamne dañuy febar duñ faju xalé yi wara jang jangul xalé yi am diplôme wara liggéey man ñoñu la bëgg lima jottu dundu ñu dund ci mais da Sénégal ku dund 35 ans am sama abonné monsieur Cheikh j'ai 35 ans je n'ai jamais eu 300 000 francs yu dajale musuma ko am billahi wallahi taala sama benn abonné il ko nekk Sénégal 35 ans musuloo am 300 000 yu mat yu dajale dara amu fa yaa yaa amul liggéey amul gat lekk bi baaxul tali yi baaxul da ngay romb ci mbedd yi bi di ball luxe city cité cité Kër Martin Seye ay immeuble yu grand nga fay gis mais talibi un mois yim fa nekk yëpp boucher bi da doon bal ni comme comme comme comme comme une rivière maladie façon maladie yu nekk lek yi baxul brioche doore lay dem di jënd sama bir di daw jënd kilo dibi sept mille soxna lek bu ne ma yap bi daf melni baxul man ko lay wax ni li baxna mais ma togat ne wax nga deug ha te ay yax lañ lay jaay 7000 francs kilo dibi Sénégal kenn lekatul yap les enfants sont malades nous Ils sont malades. buñ la malades. Ils man malades. ils di am cauchemar ci Ils sont ah sont malades. Ils sont malades. Ils ñaari douche 200 personnes loolu sont malades. Ils sont malades. ñu wax ko une chambre qui Ils 200 personnes. personnes ñoo ci Sénégal. ñaari douche <laughs> Sénégal ñëkkee di fi di julli di woor dëkku yéefar nan ngay jëlee deux cent personnes nga dugal leen ci benn chambre amul ventilation amul climatisation dëkk day sénégal sénégal lu dëkk defoo dara ñu jàpp gaa ngeen baal sama connexion bi day jékki-jékki daw quatre ans gisoo jigéen ñu jël la par guddi bu bu ñuy tëdd dañuy taxaw ñu ne eh yow tëddal nga tëdd ñu ne la sësul ci kii nga ñëw sësu ci moom ñu jël keneen di sës di la paqueté dañoo paqueté ba nit ñi léegi dafa fees de am na ñoo xam dañuy taxaw di langaamu noonu la ñuy nelawee sa moroomu góor sës la affaire góor jigéen noonu lay commencé douche yu xasaw douche yi des fois day bouché douche yi day bouché booy dem douche da ngay ñëw toog ci noonu

def ko gang di racket nit ñi bu la sa yaay yónnewu ceeb yàqu nga bu jangaa ngay lek senegal sax dañoo bax des fois dañuy seddo di one wocc yi wonent bu amé ñepp ko amoon corona ñepp ko amon, affaire goudi gel sax bo démé am na fa tap borom tap yi borom goom yi waji dañ koy wax ñu gis ku am tap bu reuy gis ku am goom lo febar febar febar paracetamol lañ lay jox loolu yak ngeen ko loo feebar loo mënti am boo demee infirmerie faram par paracétamol naa conclure naa conclure te connexion bi daal il bi moom connexion bi baaxul mais suba beneen il bi may nekk foofu la connexion bi gën a baaxee maa ngi di gërëm di leen sante di leen wax rek di leen wax rek ne malgré malgré li ma leen wax yëpp mu négatif am nañu espoir quand même ndax dëkk bi ñu gis mu génn wax nañ ne Sonko da leen jokk

bi ñu teg il faut que ñu teg leen ko ñoom tamit waa APR léegi dañu commencé am confiance dañu am espoir ñoom ma ci trois dañu commencé am espoir ne léegi kat nit ñaa ngi ragal nit ñaa ngi daw kenn ñemeetul wax Cheikh Bara Ndiaye rek fi ñemee wax te léegi ñu fexal ko ak Modou Awa Mbacké Mister Cheikh te Mister Cheikh mi ngi fële ci àll ba même laveurs yi sax ñemeetuñu wax même laveurs yi nekk euh, Europe ñu ci bëri tàngatuñu man de man de benn joolaa laa ciy gis muy wax mooy dabaax laa gis muy def live kay sof Ousmane Tounkara des fois mu def des fois du def gisutuma sax ñeneen ñiy def live ay ñoom Seyni seen ay ay ay beneen waa ji seen live yëpp ay généralité lay doon ah sëñ sëñ Ousmane Sonko mu sell bi nii nii ay généralité mais ku me kuy def live comme man live yu tàng ba nga xam ne la yow na la booy teg Sénégal ñu teg ñu lay jàpp bëreetul bëreetul de parce que Macky Sall dafa installé benn climat de terreur lan moo koy faj il faut que ñun tamit la peur il faut que la peur change de camp ñun nous dund fitna Nous, ñu tok nous sen ma tam dañu wara dund fitna serel fitna bi nak du question da ngay dem nga nga wala nga tal sen man je ne suis pas violent mais da ngay wone détermination ne ne ñun duñu reculer moy fitna fitna bi son Sonko bu guéné def discours yoy muy def wan Nous ne ñun da ngay ñuy nous, Waye duñu reculer voilà ay yi ba suba incha allah di leen gërëm di leen sab ku ku laajul na nga laaj ku partagé na nga partage mais soyez positif soyez positif mais restez à sur sur vos gardes parce que Macky Sall mii ak Idrissa Seck xaaju xaagu xaajaguñu bay pare merci.